salaatun wa tasliimun an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri ddiini wal watan mawlaana al abd al xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah ñu barkeeloo ko rek ci salaatu ala nabi nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko def ci xutbatul aydayni ca gànnaar ñu ci biir waxtaan bi di leen jot li kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu yu ngërëm yu bàyyi ko ci ki fi nekk jëmmi Serigne Touba di as Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ba mott li mboolem ay yéenam ak i naalam te dara génn ci liggéey Serigne Touba kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne li ñu dooy kilifa foo ko gisee rek sax dem ci mooy delloo la ci sa borom muy kilifa goo xam ne itam. koo ko xam ci mën a muñ mën a dékku ak fàtte boppam lu néew a néew la muy jëmm joxam xam ne la ko waajurum Cheikh Mamadou Bachir seeraloon rek nekki ma jaaxal de mooy Muntaxa ndax moom daa bëggul dara man ko ah, bëgg naa dara de waaye la ma bëgg jafe kon kilifa gu mel noonu ku ko am war ngay fàttaliku bu baax ci ginnaaw ki nga nekk ndax doy na sëkk seere mooy setu Serigne Touba bi njëkk a taxaw doomu Serigne ci ndigalu Serigne Saliou bi mu demee ba doomu Serigne Touba yi jiite ci jullikaay ay biitam Serigne Saliou moom la tànnoon te boobu ñu ci woon kon la Serigne bi daa wax rek li yées ci àdduna mooy xam xam loo amut ak am loo xamut kon yàlla nañu yàlla dimbale waaye ñun ñu topp ci gannaaw di suñu kilifa ndax moom kat kenn mënul koo xeeb ci dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxalin te lii itam yépp génnut yërmaande ci nit ñi génnut bëgg ñëpp am jàmm boole ko nag jaamu yàlla bu ma sëkk te bu fépp fu jëfam génnee ñëpp xam na jëf ci dara mënu ca xew kon ñu ngi koy mu yàgg fi te àgg ak suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jëlee liggéey bi teg ko sama loxo maa ngi koy fàttali si Moussa léegi Sëñ Muntaxa moo woote woon ci kër Sëñ Tuubaa ñëpp toog booba Cheikh Sidi Moustapha fi nekk mooy ci at mu njëkk la moo woote woo jabaru Sëñ Tuubaa gépp neen dama bëggoon ngeen ànd ak Basiiru jàppale ko ci liggéey bi ndax bu ma soñoon bi tam suñu bisaab yi maa ko koy seeral léegi mm-hmm. waxoon na ci mu wax ci ñëpp ba ca jataay ba waxoon na fa kàddu gu diis ne bu ma ko sañoon tamal ko de man mii maay laxasaay topp ci ginnaaw waaye nag du ma dañ dina ci ginnaaw ba ba nii waxtu wala dama danaan ma li jiitu ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loolu ci nopp na kon nag ñu koy suñu cant ci moom yàlla ak suñu tubaab dañ koy seetal bu toon lépp itam xam gi ñu xam li muy daj ci diggam ak boromam ngir bëgg ñëpp am jàmm fu ngeen yëkkate mu fu ngeen déggee mu santaane bés ku xamoon lam ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am xéewal nit ñi fuñ toll war dañ ko ñaanam yàlla bi tànn kon ñu nuyu suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ak comité organisation bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi nii ren la ci fukki at ak juróom benn wala juróom-ñaar waaye boobu ba léegi nii kenn tayiwu ci kenn toqiwu ci waxtu ne dañuy seen passif di gën a yokk ngeen xam na ne Sëñ Tuubaa dañuy liggéey kon ñu ngi leen di sant bu baax ci ànd gi ci liggéey bi ndax loolu itam noonu la Sëriñ Tuubaa doxalewoon ab liggéey euh, ab liggéeyam ñoom ñëkku ci ne sama euh, Sëriñ Tuubaa lu mu mos ci def ñoom la ko daa àndal moo tax ñu itam ci yoon woo képp lañu doon te doomu Sëriñ Tuubaa itam noonu lañ daa def kon ñu leen di sant di sant mbooloo mi fi di jot li kàddu yu nuyoo nag yoo xam ne ñu ngi koy teg ci loxol gouverneur de la région bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak service yu mu ko seqal te ka ci jiitu du préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam nga xam ne ndaje yi njëkkoon def ci commune Touba. ca Serigne Ousmane teewe ko ak Serigne Abdou Lahad Ka ñoo ko àndoon ba liggéey ca lépp solo ci liggéey demaat ca euh, ndaje Mbàkke waaye defaat ko ci commune ba ndax mu gën a yaatu ba li ci ëpp ñu waxtaan yoon ko fa ko seqaloon kon ñu ngi yëkkati nuyoo di ko ci sa nga jot nañu ko ki jiite réew bi tey di président Diomaye Faye di ko yóbbante nuyoo sëriñ bi ak mboolem ñi mu seqal liggéey bi te buñ ci tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu màgg gi ndax wàllu diine ji ci foofu la nekk di leen ñaanal suñu borom dimbali leen ba yaakaar ji réew mi am coom suñu borom bañ koo tas ndax yaakaar rek nit ñi moo tax bu fal leen te suñu kilifa bu baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne yaar rek a fi am. ci la xëye ak ci la gontoo mu ne mu ne ki la xëye daa tëdd bu guddi jaaxale ci mbir xelam xalaat bu somb xelam daj la moo ne rikk waaye na nga fexe ba yaakaar bi bu mu tasee ci yow nee na la gontoo itam daa xëy woon feneen yaakaaram ne fa mu dem fa ba ngoon yaakaaram tas fa mu gontoo la kon dikk na nga fexe ba yaakaaram ja dos tas kon nag ñi ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ sumb xam naa buñ demee ba ci biir sëriñ Ousmane bi nga xam ne mooy saytu kuréel gi nga xam ne mooy saytu màggal bi ak ñi mu ko àndal ak suñu Abdou Ka danañ leeral li jëm ci wàllu liggéey bi fi ñu ci toll ak ci war a joyante ndax màggal gi moom bisub sëriñ Tuubaa la suñ borom def def ci tawfeex fi ñu ko wootee tey ca ndaje mii di gouvernance bu njaareem Serigne Touba fii li jëkk a wootee màggal gi 1921 wala 22 daa amul juróom nag waaye génnu ñaari at yooyu ci la Serigne Touba xëy bis ne natt yi ba sama borom doon te jeex na li li des ci sama dund lépp ak pay la ak xéewal màggal gi saasu ak seetee xéewal gu ma suñ borom defaat da koy furaat ba mu toll fii la ko woote woon ci njaareem yëmutoon ci woote ko wax ko waaye da koo ta njëkk a moom ci boppam ci biir këram. mu mujj màgg gi dem ba génn pénc mi kon sëriñ bi lii muy woote ñi fi njabootu Sëriñ Tuubaa ki fi wutu yëpp di ko woote ndigalul Sëriñ Tuubaa la waxoon ci ay waxam yu rëy ginnaaw mi itam ñi ko fi wutu ñëpp wóyal ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu fi nekkee ñu ko daa dundal ni ko sëriñ bi daa dundale te boo ko ne danga ko daal di fi sa kër ba Cheikh Mouhamadou Fallil Mbacké ñëw woote ko ca Touba ne ndegam sëriñ bi kat mi ngi Touba nañ ko woote foofa ginnaaw mi itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw woote waat ko bi mu ko wootee itam Cheikh Mamadou Fall dégg nga la mu waxoon ba mu ko daa waxoon ne waa penk bi dañu am bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñu am bis kon yaakaar naa ñaanam boobee adduna sépp teg nañ seen bët Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ñëwee dafa wax ne màggalu Touba mooy suñu fête indépendance da ko wax ñëpp yu dégg te loole itam lu wér a wér la ndax fête indépendance bu agsee ci senegal bis bi Sénégal moo boppam ci Sahel yaakaar naa ñi ëpp xam ne tey kenn liggéeyu ci lañ ko yëge wala ci télévision lañ koy yëge waaye màggal Tuubaa képp mooy màggal goo xam ne boo demoon Ndakaaru tey boo yeexee sax jafe-jafe oto bu la yóbbu da ko am kon màggal Tuubaa la sëñ bi daal di wax mooy suñu dëgg-dëgg fête indépendance mooy lu wér ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey lislaam dana far ci lislaam dana sa ci Sénégal kéefar dana fi not ak tubaab bi dana fi not Sëriñ tubaab dogu gi mu dogu woon liggéeyee di borom ci bis bi ba suñ borom fayoo ko li mu ko fayee loolu waral ñu jot suñ bopp kon màggalu Tuubaa mooy dëgg dëgg feetaan na banaas ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadir Mbacké dadaa wax bu màggal Tuubaa gi jubsee nit ñi di jàmbat réew mi dafa naqari ndax nit ñi moom noonu la àdduna baaxoo mu ne leen màggal gi day jërutu xalaat ndax koo xam ne yaay defar bis yi ñëpp sa bis mëtta waxaale sëriñ Saliou nag da ko tënkoon ci lu gàtt daa waxoon ne màggal Tuubaa de gan ñi bariwutu ndax mooy kilifa diine yi ak waa nguur gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seenu sëriñ lañ daane moo tax màggal organise ko dafa ndur jafe waaye lu yomb la ndax li tax mooy taalibe bu ne dana ba këram jekk loolu jàpp naa ne koo xool gis ko bi mu fi bàyyi ko bii ñuy wax tey ci nekk na tàmbali Cheikh Sidi Moustapha itam ñëw yokkaat ko dolli ci yu bare bare ba Cheikh Mawlana Mountakha lii yàlla fi yàgg tànn moom itam daayu ñoo ñooñu joxaatoon da ko gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi mooy suñuy defaru àdduna ak suñuy defaru àllaaxira njàng mi mu woote woon bu yàggut bokk na ci lam jafasoon ndax day mbirum baati lépp di su ko mën a leeral waaye ba la ci mujj mooy waa waajare ko màggal Tuubaa kon xam na màggal Tuubaa kon màggal gi rek du jar sori ci li tax ndax Sëriñ Tuubaa lu dox diggam ak borom la moo xëy bis wax ne noo ko ci ñëpp santale yàlla li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem am xaafet la ci njëkk rey mooy am xar kon ak jaamu yàlla jaamu yàlla ci màggal Tuubaa gi la ci jiitu mooy ndigal la ci Sëriñ Tuubaa defoon leneen lu ci dolli ko war dañ ko ci dolliwaat ngir xam ne lu baax la ak bañ nit ñi def lu xëy neen waaye lam ci digleel boppam nag te léeg-léeg ñenn ji mel na kuy bëgg a jëli jees di ko teg ci ko suñ bon la mu ci santaane woon mooy bernde kon màggali bisu bernde la loolu itam du lu jar laya ndax Sëñ Tuubaa deful luñ koy layale bisu tabaski bii ñu weesu rek suñ borom dafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nit defalu ci jaamu yàlla lu gën ren li bu jam xaram kon bisu màggal yi noonu la demee lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa minkum ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tuddi ak tabaskiwaat sëriñ Saliou moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy ak tabaskiwaat ndax far sunna sayyiduna Ibrahima kon dee leen ko tuddi ak màggal ci sëriñ Tuubaa la jóge kon loolu mooy dox ba nëgëni màggal gi nag moom yaari fànn la mooy fànn gi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te li ci ëpp mooy li jëm ci wàllu ndox kon loolu itam xam naa buñ ci duggee daañuy wax fi ñu ci toll ak jéego yu ñu ci def kon ñu ngi leen ci ñaar baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi nga xam ne dëkk bi xam nañ liñ ci jànkoonteel te màggat gërëm nekk ci digg bi loolu itam yéen da ngeen leeral fa ci toll ba ca des it mooy wàllu courant courant bi itam xam ngeen ne Touba ni muy màgg dafa ëpp ndax ay 2003 2004 Touba mi ngi toloon ci vega vega met bu ngeen gisee ci jamono yi Abdou Diouf ak président Abdoulaye Wade def at mu jot ñu maye courant bu bari ci dëkk bi mu jug Abdoulaye daane def at mu jot ñaari at yu mu ji mu jumut at mu jëkk ma cinquante kilomètres lañ joxe at mu mujj ma deux mille onze ñu joxe cent kilomètres cent kilomètres yooyu itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Touba ni mu bindoo amul benn quartier booy dem ña fay dëkk benn kilifaa ko sanc sanc ay taal jox ko ay taal bi wooyu laa mooy dëkk boo xam ne sëñ Touba ci joxewu ndigal mu ne woon ci bitti tubaa Touba dem ba mëdd ko la war a agsi Touba agsi fa kilifa googu di ñaan ko noonu lañ ko daa séddale ci biir kër yi yàlla def na 2012 bi président Macky Sall di ñëwee ci nguur gi ministre ba yoroon énergie bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu demee ndax nguur gu yées loolu toujours tout na ci am bi mu xoolee kër yi ñu tudd daar Xudus tudd Daaru Bilam tudd Daaru Mooti tudd Daaru Salaam tudd kër Mamour Diarra tudd kër Cheikh Ibrahima xamul nu mu demee mu ne man xawma courant buy jëm ci ay kër yi kilifa li ma xam mooy courant bu jëm ci population wax ko ci conseil des ministres yàlla def. kumpa am ca loolu laa waral excitation yi ñu ngi koy def sax waaye amu ci benn excitation bu jaar ci kilifa dañuy def def ko ci dëkk bi ñun ñi ci dëkk bi sax duñ ci xam dara loolee damaa bëgg mu leer ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkku sàkku fii dama koy waxaat bu ñu demee ba ci cat la duñ ko def te duñ xam nu mu demee loolu daa mat leer leeral assainissement bi itam bu ngeen ma dégg ma wax ci loolu konte weesuwuma ci xawma ci lu weesu defar nañ seen fanaan defar seen itit ba noppi ni ma fii lañ koy def xawma ci lu weesu lu loolu man mii di wax ak yéen sama kat gis ngeen dama assainissement kon noonu la demee loolu tamit day mat ndax nit ñi xam ni mu demee du courant xam ne joxeetuñ ko ci mujj gi waaye bañ ko daa joxee nii la daa demee ndax kilifa gu ne taalibe gu ne taalibe amuñ accès ci maa dem ci nguur gi di leen ñaan courant ak seen kër ku ci sa kilifa ngay dem seen kilifa yooyu itam ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa la ñu maay dem kooko jox ma kàddu ma ko lijjanti noonu rek la moom li ci am rek mooy loolu xam ne euh, ñoo ko war a def mooy wàllu loolu yëfi état la du yëfi Touba ndax Touba moom yaakaar naa lañ ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax Touba képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ab hôpital ñun la ab daayira ko def nga gis éclairage public ñun la ab daayira ko def nga gis ay ay poste santé ñun la ab daayira ko nga gis ay tëli ñun ay ab daayira ko def nga gis ay résidence ñun la ab taalibe ko def kon murid yi moom nangoo liggéey jàpp naa ci ñoom la tàmbalee kon nag màggal gi moom borom defar na ko ba noppi yéen nag li leen ci war xam ne ni yéen a ngi ci kon ñi ngi diglu fi ñu ci toll suñu Ousmane ñoom ak si daarke ñoom danañ ko leeral ak service yi fi teew waaye xam ngeen ne loo xam ne Serigne Touba ba mu koy njëkk génn génnatoon biir këram waaye daale woon na it ne màggal gi dana dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu boom bi bind nit ñi doxam la fay teew ci mbooloo mu toll xayma bi nga xam ne nag waa université ba ndax mu baaraloo moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal gii tey ñu def ko fête indépendance bañ defee xayma ba la ko jëkk dañ daa wax naa màggal Tuubaa day daanal économie réew ndax nit ñi duñ liggéey bañ defee étude bi nag ci lañ xamee ne màggal gi day yëkkati économie réew mi keroog bañ ko wax président Abdoulaye Wade man mu baaruloo maître Madické Niang ñoo fekke jataay ba ñu bëgg a julli ci àjjuma boo ko mu baaruloo waxee ne ko màggal gi dañ ko war a defee ab Abdoulaye Wade dana ko loolu mënta nekk ndax Sénégal confréries yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa ca des boo ko defee di indi coow mën a ko bokkut man mii di wax yow bokkuma Touba kokki la dëkk bu fekkoon damay défendre kokki laay laay défendre waaye Touba dafa tolluwut ak fenn wax joojee nag moo ñu topp ba dëgg mooy bëgg jàppe Touba dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu xool lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati tubaa tollutu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na gën a daaw bi ñuy def étude yi dañuy wax ne Tuubaa mooy ñaareel dëkk bi gën mag Sénégal ba fa béy mi def recensement bi ñëwee ànd ak waa commune bi ak waa Touba ci kanam ak mbooloo mu bari bañ dikkee ma ne ko recensement bi ngeen di def dafa baaxut bu fekkee baaxut nag ñun danañ jël suñu responsabilité defar suñu bopp recensement ndax comme état buy natt day xool ña dëkk ci dëkk ba gis nañ ne Touba wóor na ne li fi dëkk mën na ñaar million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën nañ caa yokk yitte ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal donte nag fa mu àgg lépp ñu bari binduwuñ waaye baax na ba tey rek ndax lu ci mën a xewoon étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daawoon muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg a gis kayit yi danga ko gis fu wóor la tege. bi ñu xoolee daaw màggal gi dépenses yi yi jëm ci biir kër gi rek dem na 74 milliards dépenses yi jëm ci kër gi dem na 74 milliards bu ñu xoolee xar yi ak nag yeeg ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee ba néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp ñuy defaraat kër yeeg ñi xaalis bi jóge bitim réew ak am na ci génn këru. gu yónnee xaalis goo xam ne rek wax na ma ca làmmiñam ne ma ñetti fan màggal gi 3 milliards dugg na ci biir dëkk bi jaar ci moom benn kër banque yi xam ngeen ne ko fa dem day am jafe-jafe kon màggal Tuubaa li muy dugg ci réew mi ñoom ci seen xayma yi gën a néew weesu na 240 milliards kon 240 milliards yooyu képp jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ñu ko defoon war naa ma a defar dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Tuubaa nag jàmbat ndax loolu Serigne Touba dañu koo tere. képp ku fi nekk jiiti réew mi boo defee lu baax dañ koy sant bu fekkente ne lañ séentu mattam du tax ñu xarab la loolu moom dañu ko tere nashaxtu bi shukri shikayatan fala ashkuluhu durri wa durri afala waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoo ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ leen bu baax a baax ndax teraanga kenn du ko xeeb waaye buñ xoolee Tuubaa daayo bi fi àgg xam nga ne dëkk bi genn kaar bi sax kaaru dëkk bi sax defuñ ko ay tëli assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi baat nu suñ waaye xaw naa yàqu daanaka ndax boo demee ba kër yi wër jumaa ji fee ñu def cérémonie officielle ba rek fa ñu baas ba daanaka lu jege téeméer million ña ngi ko ci bëgg a ñàkk ngir mën fàtte baas bi kon xam nga ni loolu bu ñu ci jugul dëkk bi dañ yàqu loolu nag responsabilité état la du lu sëriñ bi war def loolu état ko war a def kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réseau bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam nga ngeen xëyu ci Tuubaa ndax capital région yëpp boo xool ay fukki forage fukki forage ak ñaar du ko weesu te seenu ndox ma ngay doy kon Tuubaa réseau bi dafa yàqu am na ci foo xam ne ñu ko gas wax nañ boo ko laalee moom moo wax boo demee tey Christian laat ndox maa nga ci biir nga dem Christian Bilaay ndox maa nga ci biir armée yu bari yàqu nañ ndax ndox mu boo demee kër suñu saa yu ndox maa ngi ci biir suñu seex daaw tawax bi mu fa def lu yàlla lañ daj daaw jëkk ngir mën ko faa tawax boo demee fépp ba ci pencum Daaru Xudoos kon ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi kon loolu mooy sax li gën a jàmp mooy assainissement bi kon loolu ñu ngi leen koy fàttali ndax màggal gi day loo xam ne mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci daane waxal ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bi moo bindoon àdduna képp ku daa sonn ci sama bis bii danga gis teraanga yu dolli ko ci yow yoo xam danga xam bis bee kon màggal gi jàmm bu amee ci senegal dëgg dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu xeet senegal gépp nekk benn màggal gi bokk na ci suy ni ci rol yu mag mag ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñuy màggal si ay wolof lañ vingt deux pour cent yi ay séeréer lañ onze pour cent yi ay alpulaar lañ cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yeneen xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne euh, quinze pour cent yi doonuñu ay taalibe Sëriñ Tuubaa seen mbokk jullit dañ ñëw ànd ñoo màggal yi un pour yi nekkuñ sax ay jullit foofu kon loolu lii gën a dëgëral lii gën a dëgëral benn Sénégal màggal Tuubaa bi suy ni ci kon nañ ñaan ñu ñu ñu àgg ca ba yàlla dimbaliñ ci ba ndam luñ ci daa am ñu am ci lu ko ëpp yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxaw itam suñu borom dimbalee ne kàttanal leen ba lu ngeen ci daa def rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañ tolluwaayu réew mi fi mu moo tax am na ci soññoo yoo xam ne sax du jar àgg ci ndax sëñ bi daal daa wax ne ku ne la jàkk bu ko ne gesu nit bu fekkente ne xam na jàngoro xam la ko ci war kooka buy door ak si jëru soññ foofu lañ ci yamale yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi ci jeexatali ndaje bi di féddaliwaat suñu nuyu ak suñu ziar ci sëñ Mountakha Bachir Mbacké xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di euh, rafetlu nag ndaje bi nu mu tëdde naam euh, toogaay bi yàgg na waaye lañuy waajal kon naa ne jar na ko suñu sañoon nag ci salle bi am na ñu ci bari ñoo xam ne mënoon ngeen see barkeelu ci ay kàddu waaye nag liggéey bi moo xaw a tëdde noonu te parfois tamit xelu doomu aadama day fat am na si ñoo xam ne ay chef de service lañ ñu ngi ci salle bi te am nañ ci wàllu boo xam ne mënuñ ko cee def muy également commune yi ndax màggal gi dëgg la Touba waaye commune Mbàkke day impacté te maire mi ngi ci salle bi su dee Diourbel également le maire de la commune de Diourbel ak commissaire central bu Diourbel ñàkkul seen ndam bi ngi ci biir waaye loolu yëpp rek nañ jàpp ne euh, ñenn ñiy xes ba wax yóbbaale nañ ñëpp kon ñi nga xam ne amoon nañ yéene yëkkati kàddu te def nañ ko dugal ci loolu rek te xam ne ndaje bi du ndaje bi mujj pour waajal màggal dinañ amaat yeneen occasion yoo xam ne dinañ ci mën a àddu wax seen taxawaay Euh, barkellu ci bés bi ndax noonu lañ ko gisee mun na nekk ci kàddu wala si ay jëf euh, ni nga xam ne nag moom lañ tënk duñu dellu si ci bonk yi nga xam ne benn par jot gi mayuñ ko waaye mun nañ jàpp rek ne lépp loo xamante ne taxawaay la pour gunge comité d'organisation euh, état du Sénégal à travers ministère yi nga xam ne ñoo ko yore wala muy service technique dinañ ci dugal seen loxo ci fànn bu ne euh, la ca njëkk ñu xam ne moom lañ fi partage muy wàllu wër gi yaram ak cet d'habitude dispositif médical bi nga xam ne dañ koy teg direction régionale de la santé engagé wu na ne dinañ ko def waaye ñu bàyyi xel ci li nga xam ne moo wër si jumaa ju mag loolu ci tënk moom la ci ne di rafet lu baax it engagement yi nga xam ne hôpitaux yi nekk Touba jël nañ ko pour mën a def également ay gratuité des soins donc pour gën a dimbale ñi nga xam ne ñooy ñëw ci màggal gi ñu koy rafet lu baax waaye di wax rek ne ministère de la santé comme ni mu koy defee dina accompagner donc dispositif boobu nga xam ne moo nekk dans les structures sanitaires euh, le waaye tamit pour ñu yokk caisse d'avance bi dinañ ko def à l'endroit du ministère des finances te yàlla def ka ko yore tamit nekk mun nañ ne doomu Touba muy sëñ Cheikh Diba ah am nañ suñ yortu gu rafet ne ah mun naa am tey mëba bi nga xam ne ak yéene bi nga yàgg di wax suñu borom mun na ko jaarale ci ci loxo mais li nga xam ne nag administration la dinañ ko def parce que leneen di peut-être wàllu taalibe la mais nag administration moom dinañ jàpp la ñu war jébbal ko kilifa yi nga xam ne ñoo yore ministère des finances pour ñu yokk également caisse am nay argument yoo xam ne mën naa tax ñu yokk ko ndax carte sanitaire bi yokk na limite nit ñi également yokk na loolu fekk nañ ko def incha allah rabbi ci wàllu hygiène d'habitude ñoom liggéey bi mooy saupoudrage et désinfection loolu dinañ ci wëy wàllu cadre de vie Sonaged jël na jumtukaay ba pare pour mën leen accompagner te am na bés boo xam ne d'habitude pour waajal màggal gi dañ koy def mu nekk journée phare lu weesu loolu nag gëm nañ ne taalibe yi ñépp nañ ci dugal seen loxo ndax dëkk bi dëkk bu bu sell la ci wàllu ndox ak assainissement mu nekk ñaar yoo xam ne ci lañ ci war a gën a def ay effort pour maîtriser ko wax nañ ko ci bi ñuy ubbi am na secteur yu bari yoo xam ne fi ne nii mun nañ ne à 99 pour cent c'est maîtrisé ñaar yi la nga xam ne moom lañ war a góor góor muy ndoxum naan mi ak ndoxum taw mi am na nag ay jéego yoo xam ne état du Sénégal yàgg na ko def ci wàllu ndox biir Touba. ren am na si ay jéego muy cinq forage yi nga xam ne daaw lañ ko defoon mun naa ne ñett yi mettre nañ ko en service te effort engagé na ñaari yi desit dinañ ko def balaa màggalu Tuuba kon loolu foo naa ne jamono yi ñëpp xam nañ ne jafe-jafe ndox mi aussi nag wàññeeku na duñ ne jeex na am nay poche yu des waaye li nga xam ne moo ci nekk dañuy jël rek benn dispositif accompagner ko maanaam gunge ko ba jafe-jafe ndox yi suñu sañoon duñ ko dégg Touba waaye su amee nekk aussi mu nekk néew loolu mooy ay camion citerne yi nga xam ne war nañ ko ci def sa sapeur pompier defoon na ko daaw dinañ ko daagaanaat ci ministère de l'intérieur mu jaarale ko ci général bi nga xam moo yore BNSP pour que lañ defoon daaw ah ñu indiwaat ko mais nag teel koo indi ndax balaa dem beeg dikk bi di indi jafe-jafe maa ngi wax léegi préfet Mbacké kenn ren it am na loo xam ne mun nañ ko ci tirer à dañu seetlu ne ndox mi ñu ngi ko doon tibe encore ci réseau interne bi maanaam forage bi nekkoon forage Darou Mane te loolu mën nañ di jafe-jafe ci distribution bi naam diggante bi état réalisé na projet transfert doo ndox mu neex jële ko Sadio indi ko Mbàkke Sen'Eau am na ñaari potence yoo xam ne mu nga fa war nañu mën a xalaat ne yenn camions yi Mbàkke Touba soriwul mais ñu mën a ñaan Sen'Eau mu mettre à la disposition de du comité d'organisation potence yooyu su ko defee du incidence si réseau interne bi nekk Touba loolu foog naa ci cadre de concertation bi il faudra inviter la CEDEAO ngeen xool ndox mu neex boobu nga xam ne état def na ko jële ko Sadio indi ko Mbàkke nan lañ ko mën a waxee aussi mu am contribution bu rëy ci biir màggal Touba bi loolu foog naa ne dina nekk point boo xam ne dina dimbale également askan Touba ci ravitaillement ndax foog naa début bi attan na ko te du am benn jeexital au niveau de la commune de Mbacké donc loolu foog naa ne dina nekk loo xam ne ren ji dinañ ko intégré ci euh, wàllu distribution de l'eau euh, les eaux et forêts ñu ngi koy def ñu koy waxaat effort également camions yi nga xam ne wax na ko lim bi pour accompagner nañ ko indi mais lépp rek na teel ñëw balaa dem beeg dikk bi di gàllankoor mais nag avec une bonne coordination ndax d'habitude dañuy def effort yu bari mais parfois coordination bi muy indi ay jafe-jafe ci gestion camion yooyu lool foog naa ne loolu également euh, préfet yeeg comité d'organisation dinañ si waxtaan xool naa lañ koy mën a rationaliser ba jafe-jafe ndox mi wàññeeku ci màggal gi nga xam moom lañ dëgmal ci wàllu assainissement loolu également muy beneen nox bi am nay travaux yu fa ne liggéey bi sori na. waaye euh, il faut des mesures conservatoires te lool ONAS war na ci liggéey ci situ Ngelamu ak sit yi nga xam ne xalaat nañ ne mënul pare fii ak màggal daaw defoon nañ ko ay mesures conservatoires lañ ca defoon ba mën na wàññi donc mën mi au niveau de la Goudouane beneen bi nga xam ne waxuñ ko ci c'était muy point wu devanture mairie bi daaw amoon nañ si ay jafe-jafe yu mag mais ren foog naa ONAS jël na décision pour jéem ko régler def si benn dispositif avec un tuyau antenne ndax daaw dembeeg dikk bi tuyau yi da doon am gàllankoor donc foo naa loolu suñ ko régler aussi dembeeg dikk biir Touba dina dina dina gën a gën a jàppandi leneen nag muy wàllu courant énergie Sénélec ñu ngi leen di remercier bu baax si effort yi ñu def et incha allah comme ni ñu ko waxee mise en service poste 2 bi nga xam moo nekk Touba dina gën a encore jàppandi la distribution de CO au niveau la Ville Sainte yeneen yi muy kaaraange gi dañ leen di jaajëfal bu baax muy les forces de défense de sécurité ndax événement bu toll noonu dafay laaj taxawaay yoo xam ne takk der war nañ ko am te foog naa ne at yëpp gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax euh, ñuy yokkaat rek ndax chaque année la nga natoon il faut nga dolliwaat ci leneen ci lim mais ci point yoo xam ne war nañ ko mën a tenir ndax dëkk bi mooy mooy màgge noonu ñeneen ñu bëri jóge ay région également muy côté secteur gendarmerie nañ jël un dispositif et ñuy ñaaxaat na daaw euh, chemin de fer Sénégal def nañ ko mettre en service am na ci loo xam ne jóge na ci ci wàllu kaaraange nañ intégrer en une fois les passages à niveau dans le dispositif sécuritaire donc chacun nag si sa zone de compétence la am na foo xam ne compétence police la ñàkkul am na foo xam ne compétence rek ku nekk rek taxawaay bi nga ci war a am pour gunge également donc euh, les chemins de fer Sénégal ba nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ndax foog naa le transport en masse mun na permettre ñu wàññi accident de la route te loolu également Sénégal dem dikk ñi ngi leen di demander ñu accompagner lool xam naa ne du neex na suñu mbokk transporteurs yi waaye nag il faut concurrence am ndax su defee bu boobaa euh, njëg li dina gën a jàppandi te am nañ ci yaakaar ne objectif bi mooy nit ñi ñëw màggal ci jàmm dellu si jàmm te ñoom it yi loolu moo war a nekk seen objectif di remercier yëpp loo xam ne nag tënk nañ ko fi muy approvisionnement et contrôle muy communication dinañ ko def ci benn tableau comme niñ ko defee nii jëlaat observation yi nga xam ne jëm na fi jébbal ko chaque chef de service bu fi nekk dinañ ko jox nga xam ne ñun bi ñu defee CRD lii la ñuy xaar ci yéen jox ko également le niveau central muy les ministères concernés am na dogal yoo xam ne ci kaw lay jóge ñaareel liggéey bi ñu defit mooy maintenant à partir d'aujourd'hui def un suivi parce que nekkatul léegi nag ay doléance li ci am solo na mooy lañ tënk lan ak lan lañ ci def semaine par semaine weer ba ba ni ñu egg ci bés ba